my business. My business. I know you go buy too. All I care for the night. Say less. Mundu mbala take suuf ndax yaa ngi ci kaw bu la dara métti béy bu la dara soof gën di màgg gën di mal gën di bëri forme temps yi ba yaa ngi ci dara temps yaa ngi ci forme gis na t'es pas fiable que tu follow que les posts battent sur Insta que tout Dakar à ton post na c'est dingue ça et tu n'es que dans les reçois j'aime pas ça non baby girl stop Yeah, yeah, yeah, yeah. Si tu veux te poser avec le book, faudra que tu mettes des distances. Yeah, yeah, yeah, yeah. demo feel, no more block I can, no demo land my chance. Non, attends, je sais que t'as les crocs et on va dans le même sens. L'amour demande du vide, l'amour demande patience. Toi, tu veux tout de suite, moi j'avance sans pression. Non. Ah, finesse. But then I you take where you ya cheat this, babe. Can you do good chill? Can you do good on my business.